ñun nag daanaka mën nañ ne wax ji du bari président def nga sa bilan am nga ci droit parce que comme fal nañ la cinq ans nga taxaw def sa bilan euh, bilan bi don doon na lu métti lool parce que cinq ans moom ku ko jox euh, lu toll ni regroupement des chauffeurs jox ko doomu aadama di ko saytu moom munul doon mission bu yomb mais nag comme suñu borom dafa dogal ñun aussi ñuy ay acteurs bokk ci secteur bi te li ci boole ñëpp boole ñu ci suñ ci amee ay point yu lënt baax na ci bis bu mel nii comme occasion bu mel nii buñ ko amee bala ñu koo amati day yàgg ñu mën ci profiter euh, li nga xam ne moo ñu lënt ci biir yorin wi ñu mën koo laaj waaye nekkul kaawu ne dañoo soxla sees bi wala dañoo soxla lenn ndax it suñ borom mi ñuy suturaal tooguñ di xaaru bu sees ngir mën a tedd ñoo ngi sant yàlla bu wér mais nag li nga xam ne dañ koy laaj rek mooy ginnaaw bi nga defee sa bilan ba pare rafetoon na lool bilan mu am traçabilité traçabilité mooy lii yi nga xam ne moom ngeen ma jox fii laa ko jële ba fii laa agsi ànd ak ay relevé compte yoo xam ne day sell te jaar yoon te it rapport financier bi ñu doon xaar ci le trésorier général du regroupement lañ ko doon xaar te gisuñu le trésorier général du regroupement toog ci table bi kon dafay mel ni regroupement bi amul trésorier général wala boo amee it xëy na dañoo wañaar loxoom ndax xëy na ni mu bëgg a da ko bëgg a jaarale ci transparence te loolu xëy na am na ñoo xam ne arrangé wu leen beneen bi ci des mooy président bi ñu la falee da ngaa taxaw waat ne ci assemblée générale ne lépp loo xam ne statut bi santaane na ko du ma ci wàcc dara ñu gis ne statut bi dafa wax ni yow président yoon daf la sant ne la weer wu dee wu ne na nga woote réunion de bureau nga xam ne 60 mois def nañ ko juróom benn fukki weer te amul benn PV réunion de bureau boo xam ne. tey teg ngeen ko ci table ji fii boo xam ne sa signature mi ngi ci ak signature secrétaire bi yoon sant la ne la at mu ne war ngaa def benn assemblée générale ordinaire boo xam ne mbooloo mi dañoo war a teew ànd ak ay convocation te lépp dafa war a tege ci PV nga xam ne suñu agsi woon fii tey juróomi procès procès verbaux yi waroon nañoo teew ci kaw taabal ji fii ca lañ ci waxtaane mu mel ni askan wi kon seeni mbir xamuñu lu géej gi riir buñ buñ gisee ci yow lu mel nii ba lañ koo gisaat mandat mi dafa jeex te loolu du cëru un dirigeant beneen bi ci des mooy li nga xam ne mbindu mi dafa am loo xam ne dañ ko daan jagleel chauffeur ci liggéeyut ak li nga xam ne mooy mandat traversé yi nga xam ne dañ ko daan boole ci li courtier di am ñu mën koo séddoo ngoon ñu mën a am dara loolu lépp ñu gis ne dañ koo boolee téye million yi bari na lool waaye askan wi sonn nañ lool ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax maa koy man nag Mortala Gaye ndaw laa ndaw bu gëm sama bopp nag ma xamal leen loolu président Idy Ka yàllaa ko fal yàllaay fale yàlla mooy fale suñ demee ba le premier deen xam ba xam yàllaay fale ba xam kan mooy war a falu ñun ñoo ngi jël suñu kàddu ñoo ngi jël suñu kàddu ak suñu lépp di leen tàllal loxo yéen waa askanu Touba ne dëgg ñu ñor dëgg lañ bëgg. daa am yoo xam ne il faut ma poser ko le président Idika déglu leen rek déglu leen rek fii kenn ku ne xam na boppam kenn ku ne xam na kan la ñun dëgg ñu ñor ci dëgg la ñuy dox ku ñu xam-xam ne ci dëgg lañuy dox soxla ñu yëfu kenn. ku xam mortala ngay xam mooy kan ku gëm boppam ku bëgg a dimbali askanu Touba Mbacké si loolu laay taxaw si laay xëy si laay gont dëgg bu jotee nañ ko wax yàllaa fi ne ak Serigne Touba Mbacké mi fi ne si dëkkam bi ak le xalifa général fisis moo tax su ngeen ma mënoon rey ba tey rey ngeen ma mais man suñu borom laa yaakaar ak maam Cheikh Anta borom gaawal ma xamal leen loolu ñun ñii fitis xam nañ leen ñi nga xam ne ñooy fitis xam nañ leen ñun duñ def kenn lu bon duñ wax kenn lu bon li ñu bëgg mooy képp kuy chauffeur kuy transporteur ñu jëmal la kanam jël presse regroupement bi ñu jël ko liggéeyal leen li ab liggéey la. lii ab liggéey la est-ce am na wax yoo xam nag man duma si tontu waaye président Idi Ka suñu tata yii nga gaase lañ lay laaj ba xam monsieur le préfet ba xam mën nañoo indi carte d'identité fii ñu xool ko jàkkaarloo ñun jàkkaarloo ñun wan ñu carte mais da Idi Ka ñun ñi muy reye seen i pour lan mënu ko reye kii buñ ko falaatee am na ñoo xam ne nii dana leen rey maa leen waxal loolu ndax dana nangu seen i carte dana leen teg lu leen bëggut yaa may kon dama ne nañ leen seetaat bu baax li ñuy def nañ leen seet fi ñu dugal suñu loxo seetaat leen bu baax fi ngeen dugal seen loxo. man de kontaan naa man Idika ndax lii ku mu dara doola doy dara dara doola doy. maa ngi sant commandant corps RD ci taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw fii gis naa ko ndax bay gone taxawee seen deret day jege te lépp dalal na ko taxaw ko ba lépp sedd guy kon maa ngi leen sant yéen autorités yi fi nekk yépp maa ngi leen sant seen taxawaay di ñaan yéen sama gone yi sama doom yi ba bi tasee na ngeen taxaw ba ñoom ñiy génn ngeen doog a génn ndax nit du nekk ci dara di ko xajamal bu leen ko xajamal mukk na nga leen bàyyi bu ñu génn ba dem foofu ngeen taxaw bu leen fi buuse meetar ngeen bàyyi leen ñu dem bu ñu génnee ngeen doog a génn ñu dem jàmm am loolu laa leen di ñaan jërë ngeen jëf bi ci def ñoom dañoo am la ñu ma laaj man da yaakaar naa ni man Idika bu ma taxawatee ci àdduna di fa benn carte grise di ko gaase kon man du ma score waay waay xam ngeen samay carte grise xam ngeen na ñor na waxi noonu la may may may may xam ngeen samay carte xam ngeen ne am naay tata yoruma benn tata yoruma ñaari tata kon nan lay fobee tata groupement bi di ko gaase bàyyi samay tata man benn tata dong laa am bu am gaas benn tata benn deux tata yi ñuy wax carte grise américaine benn deux moo ci nekk kenn miiti kenn dindeegul gaz Serigne Gueye mi am na ci ñeent mbay Seck mais am na ci kenn ku ci dindeegul la amagul lawi de gaz amagul kenn amagul ko ci mbéy bu fa baat wata ko gaz yi kon xelam gore moo nekk ci ñoom ak jéem wax lu ñu xamul nit ki nag bay wax ci nit ay doomam toll ni looy wax ci moom war na laa leer war na laa leer xam ngeen samay doom xam ngeen leen xam nañu leen kon dafa am loo xam ne di ko yëkkati di ko wax ah te amoo ci loola leer erreur mënu ko passé loolu erreur la maam Seex président président président groupement dégg nga ba gañee mooy fal ak bu woo membre bureau bi ñu too fal dégg nga loolu moo am boo dee jàng tey nam na bi da ngay dugg ci groupement gone goo xam ne duggoo ci groupement nekkoo ci groupement barke Serigne Bamba munoo fexe munoo fexe ba doon président munoo ko. waaw beneen bi ci des nekk ci lamb jub ci lamb ji bàkku génn ci lamb ji bàkku moo ko gën nekk boo xoolee lii boo xoolee lii ak ñu ñëw indi ka doonul cuune ba yor groupement ba ne du ko jël ci loxo mënut nekk loolu mënut a nekk samee samee mënut a ne boo ko xoolee juróomi fukki nit yu mat ànd toog moom fii mu toog fii mu toog nii mat fukki nit mat amu ko fii mu toog kon na ni moom xaajamal nit ñi moo tax ñu di ko wax waaye xam ne ni mu tamit bala mu ma bi ci des bala maa ngi sant yéen sama bopp sama bopp réseau maa ngi leen di maa ngi leen di garu Dakar gis naa Aliou Lo bu ma tuum ndax li ñëw ba ma ne 14 régions yëpp ñëw nañu teew si fii kon nag man li nga xam ne moom laa bëgg a lii waxuma ko ndax man xam naa sa bopp damay jàll 100 pour cent. waay waay damay jàll 100 pour cent. lan la li ci des transport bu yàqu bi moom laay wax dañu maa fal national ba ma falee national tasanteeg sama mandat di jeex. moo tax yëkkatiwuma benn jéego di ko dox waaye nag nanu ñaan ba dimanche le ma nekkaat ci kaw waar li nga xam ne am nanu jafe-jafe ba neexee yàlla jëmi sëñ Bamba dinaa ci taxaw faj ko lu ko nit ci bëggee. naaj ma booleeg naw ndax li wax lu ma gëm la ma gëmul du ko wax. wér na li di ko du wax lu ma gëmul ah. gis naa transport bi fu mu toll ak transport bi nekk. ci bi nga boo xamee ni transport bi 76 na transport bi melal amuñu genn kàddu amuñu fenn fu nu koy jooyee ci nañoo delluwaat ci transport kon loolu ndegam dem nañu ba fal ma président national du Sénégal loolu da ngeen maa sas te barki Cheikh Issa Diène mi ma yaakaar danaa ko bay danaa ko bay jëm nañ loolu de lii nag moom laa am la may sànni samay kàddu jërë jëf